ay Mariam Faye. fii mooy ban euh, village. fii ci mbir jam la bokk waaye fii suluf lañu koy wax. koy wax. waaw ah. ci fajar bi am na fi ay dégâts euh, ci mu demee ci fajar bi de dañoo kii ba muy taw bi ndox bi bare noonu ba dannu bi ñëw bi ma déggee dannu bi yëngu rek ak miir bi ñoo ànd. booba ñu ngi toog maa ngi toog côté bi paa bi toog fee fekk ndox bi bari na néeg bi fu masula seen na muy seen na ba ma naan ko néeg bi de masula masula seen na fi ma tàddoon ma jox fi yàlla moo ma yëkkati foofu waaye foofu moo jëkk daanu ma toxu côté bi toog ci laa dégg rek côté bi ma ba ma bëgg a génn aw ma fu may aw paa bi gisatuma ko sax ndax fekk kii daanu na nit de mu nekk ci suuf sama doom bu góor bi itam fii mu daanu amet néegam bi daanu moom mu tab mu ñëw di ma sowe moom moo ma doon sowe léegi attanu ma fekk sama tànk bi dafa am fu mu kale waaw kàddu yi ñu yëkkati mooy d'abord euh, massawu ñi nga xam ne lii dal na seen kaw euh, vraiment muy loo xamante ne aussi lu ñuy naxarlu la mais comme ni ñu koy waxee rek euh, dogalu yàlla quand même mais itam bu ñu appuyé wu toujours rek ci kaw ne yàlla moo dogal yàlla moo dogal il faut que ñu xool aussi wax naa ko léegi changement yoo xam ne war nañu ko mën a def ci dëkkuwaay yi ndax bu njëkk ba bi village yi nekk nii boo leen di xool ay juróomi kër juróom benn kër la woon mais actuellement sur surpopulation bi tax na bi nit ñi dañu dëkke n'importe comment loolu moo waraloon ñu initié woon Euh, restructuration village yi parce que mën ñu permettre vraiment ñu am ay mbedd parce que bu ñu amulee mbedd euh, dëkk mi du mën neex ci côté yëpp léegi rek bi ñuy ñëw gis ngeen ci yoon wi euh, électricité bi ay tuyaux yoo xam ne ay canalisation ndox mu ngi ci biti te yooyu ku ci ne xam na ne aussi ay danger la tey fii ñu nekk tey sapeur pompier bu doon ñëw tey jii pour mu accéder fii directement avec seeni oto mënul nekk donc il est temps que village yëpp ñu restructurer ko mbedd mën a am canalisation mën a am nit ñi mën a dëkk dëkkin woo xam ne dëkkin wu rafet la là aussi je pense que dañuy woo population bi aussi pour ñu adhéré wu ci loolu xam ne dëkk yi dañ ko war a defaraat waaw parce que dëkk yi mënul nekk nii tool yi wër leen ñàkk yi wër leen mais en ce moment ndox mi du am fu muy jaar donc yooyu yëpp dafa war a dañu liggéey la boo xam ne commune bi moo ko war def te prochainement yaakaar naa ne depuis quelque ngi ciy liggéey bu ko finaliser ce document là dinañ ko soumettre tous les chefs de village tous les chefs de quartier pour que aussi ñu mën ñu jàppale village yi ñu mën ko defar façon boo xam ne daañu mën a dund dund ngeen situation mel nii ci commune bi. Mhm. Euh, li nga wax euh, bokk na mhm. solution yi nga wax. Mhm. restructuration du village. Euh, li ñu mel tey est-ce que dañu di woo seen doole néew na. jàkkaarloo voilà seen d'accord parce que état bi bu tëralee plan ORSEC. Euh, le plan ORSEC pour que mën a jàppale ñi nga xamante ne vraiment ñu ngi ci situation yi mais nag bu ñu jàpp rek ne situation bu am ñu ñëw ñu jàppale leen man gisuma loolu comme solution li ma gis solution mooy que ñu fexe ba defaraat dëkk yi ba nga xam ne lu mel nii dootu amati man je pense que loolu mooy solution bi mais solution bi nekkul rek nit ki yàqule nga ñëw indil ko secours yooyu pour man kooku kooku du solution donc il faut ñu am une solution définitive concernant ce problème là voilà merci waaw dañuy wax eh may ñu wax ni dañuy gërëm maire ñun tam Cheikh Tidiane si suluf Njooneen. mel ni da ngeen dund jafe-jafe boo xam ne euh, ginnaaw bu ko maire yéegee am fi ak gendarmerie pour def constat bi xool dégâts yi di mel fii mel lan ngeen ci àddu. waaw jafe-jafe ji taroon na lool waaye bi ñu gisee suñu meer sedd na suñu xol ndax. ci fajar ba tey ñun ñu ngi fii liggéey ñun ñoo ko defaral première liggéey bi ñun ñoo ko doon def waaye biñ ko gisee ñu itam suñu xel dal na ndax li tax suñu xel dal parce que ñu waxoon fii te moom mu ci ba tey daf ñoo fii dinaa ko def def ko sama kër te loolu wan nañu ko ndax moom li muy metti metti metti tey biñ ko gisee affaire bi sedd na ci ñun suñu xol ndax lii ñëpp xam nañ ne metti na waaye su lu la mën a dal soo amee ñi lay taxawu rek da mel ni la la metti woon metteetu la moo ne nii moom la ñu defal tey parce que bon vraiment li mu def nii defalu ko boppam ñun ñii la ko defal. ndax su fekkoon ne boppam la koy defal mënoon naa yónnee nit ñi ñëw fi waaye yónneewul moo ñëwal boppam. fii ñun ñëpp ñu nga tëddoon ca jàkk ji liggéey waaye bi ñu ko gisee mu ñëw ñun ñëpp dañoo kontaan jóg taxaw ànd ak moom ñëw taxaw déglu ko mu wax la muy wax mu nekk wax jomte nag wax ju ñu intéressé wax ju mu wax fii wax ju ñu intéressé la. parce que war nañu ne suñu mettit mettitam la. li ko li ñu metti metti na ko war nañu ko bés ni ki tey kon ñun gën nañoo xam moom li mu ñuy jariñ parce que tey ñun naka jég moom lañu àndal mu ngi mel ni Macky Sall taxaw njooneen tey rek parce que moom mooy Macky Sall fii kon kan kan moo fi Macky Sall moom ñun bañ ko gisee kay bi lii amee ñun ñëpp suñu xel ci maire la dem kenn yaakaaru woon ne dina ñëw kenn yaakaaru ko waaye comme que def na ñëw na ak ñu meloon ni moom dañ koy yokk rek waaye duñ ko wàññi waaye moom mi nga xam te ne mooy suñu maire itam yàlla na ko yàlla gën a taxawu bàyyi ko suñu kanam parce que lii moo ñu manqué woon su nekk na maire bi dëkkuloon fii itam suñu amuloon ku dëkk ak ñun ñii su lii amee fii la ñuy romb rek dem wiiw wiiw la ñuy dégg waaye moom lu am fii mu ñëw te noonu la ñu ko waxee woon waaw yàlla na yàlla saxaal la jàppale la jàppale mboolem jullit ñun daal suñu xel dal na waaw loo ñu mën a jàppale ci lii nag moom jàppale ñu waaw ñun daal lañ la waxoon rek waaye moo tax ngeen ñëw ak yëg ma ak yëg ñi nga xam ne ñoo ngi yeen seen conseil ah ni ngeen ma taxawoo nii yàlla nañu yàlla taxaw parce que nit boo nekkee ne lu baax dina koy def te yàlla tax yàlla da koy fay lii moom xalaatuma kon waaye nag ah yàlla nañu yàlla sàmm te li ngeen bëgg yàlla nañ ko yàlla yombalal ah yàlla moom nga rek lu mu dogal ci doomu aadama kenn mënu ci dara lii moom suñu borom moo ko dogal ci man te gëm naa ko maa ngi sant yàlla hmm, maa ngi gërëm xale yi waa kër gi nag jàpp nañ ci bu baax a baax hmm, xale jàpp nañ ci bu baax a baax parce que man xam naa ne buñ ma seetaanoon rek bu baax hmm, ah xeeb ma li ngeen may jox de waaye yal na leen yàlla li gën a dolli ngeen man ni jàpp ci li ngeen nekk yal na leen yàlla taxaw